asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi ñu ngi mardi 31 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan yëglikaay yi li ñu indil ñu dikkaat ak yéen si plateau. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 31 août 2021 dañu ñëw kin ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëta mu njëkk moom lëm ca xëy fësal mooy ñaari mbër yoo xam ne maanaam seen wàllum kujje ci lamb ku nekk bàyyi na ci xel ba ñu commencé seen carrière ba fii ñu toll tey muy Modou Lo le roi des arènes ak Balla gay 2 mi nga xam ne nekkoon na fi roi des arènes moo tax yëglikaay bi xëy na tey toppal ñu lu mel ni ki noona wan ñu leen ñoom ñaar ñu nga joxante loxo mel ni ki nag yëglikaay bi ne na ca atum 2011 daal ñoom ñaar ba la jotee ka nga xam ne moo na fi nekkoon njiital réew mi di président Abdoulaye Wade woowoon na leen ca palais ba daldi leen jubale maanaam daal réconcilier ñaari mbële yooru 2011 la amoon yëglikaay bi ñëw ci Balla Gaye 2 ne na daal boo ko day xool dalay day beneen ni mbir mi daal ñoom ñaar kon xanaa kay da nga naan diggante Messi ak Ronaldo ci taxawaay ci wàllum sport mel ni ki ñaari mbër yi daal seenub diggante yëglikaay bi ñëw na ci yëglikaay bi dikk na tey ci lu yaatoo yaatoo yaatu yëg ki nga xam ne nag moom moo di président rok NDC jamono jii nu muy Khadim Gadiaga ga la mu gis ne na seen rivalité nekkul loo xam ne lu bon la lu baax la ci làmb waaye nag la ca daal di teg moom mi nga xam ne moom moo di Khadim Gadiaga président Wade daal moom tamit la mu leen xamaloon ca jamono jooju daal ne na boo bëggee dégg dëgg daal maanaam ne na làmb wala bële relation la boo xam ne nii daal boo xam ne wala liggante la boo xam ne wala mbir la moo xam ne moom làmb luy boole ay nit la waaye nekkul loo xam ne sax luy tàqale la mel ni kon daal yëglikaay bi tey toppal nañu ku jëgu metti ga am ci diggante Modou Lo ak Balla leneen loo xam ne yëglikaay bi indi na ko ci xëtam mu njëkk muy écrit ba nga xam ne nii moom moo di taay si nga ka ko jiita nag di ëma seen nga xam ne bari na ak Modou Lo bëri ak Balla Gaye yëglikaay bi ne écrit booba day daa mel ni boo bëggee dégg dégg daal ñoom ténor ya lu méttee métti la ñuy dund ndax ëma seen daa ñàkk kombaam ki dem Tyson 2 tamit ñakk kombaam yëglikaay bi tamit boole na ci ka nga xam ne moom moo di ngeer waaye dégg moom kombaam da koo gañe moo nga xam ne moom moo di libidoor bu ngunjaan ren loolu moom am na leneen loo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na ca wala meneen mbër wala keneen koo xam ne moom combat ba nga xam ne nii moom la topp fi mu nekk nii di ko mën mooy mooy combat boo xam ne daal maanaam ña nga xam ne dañoo nekk ca inondation ya ñooña daal la xëy taxaw wala mu topp di leen taxaw ci fan muy seta bu jàmm gën yëglikaay bi ñëw na tey daal di wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag Siteu daal fi mu nekk nii xeexam moo di bi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi maanaam ndaw yi taxaw te mënuñoo am liggéey leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na tey dina ko wax mel ni ki démb waa CNC bi yore làmb ji amaloon nañu ab réunion mel ni ki nag tey ji daal la ñu convoqué promoteurs yi ci mardi ji xam naa kon tey dinañ leen lëtt wala ñu firi leen ca la nga xam ne nii moom moo de saison bi nga xam ne moom la ñu war a jëmaat leneen loo xam ne wala beneen yëglikaay boo xam ne fala nuy dem muy les arènes les arènes moom tamit xëy na tey toppal ñu Modou Lo parcours combattant daal la bi jàpp ne moom la def yóbbu ko ca couronne roi des arènes juróom-ñaari mbir ya nga xam ne tamit ca la Modou jaar ba yegg ca tiitaru roi des arènes ba am na yoo xam ne yëglikaay bi jukkil nañu ko ci xëtamu njëkk digganteem ak Papa Sow yëglikaay bi ne na derbi parcelle booba nekk na loo xam ne kenn dootu ko fàtte ci lamb ndax itam nekkoon na bés boo xam ne bu doyoon waar la ñu ne déet na waay kalaf ba tamit Modou Lo wane ca loo xam ne diggante mag booy Kayre daal kera nam ca doxale maanaam liñ naan gagné avec la manière la def def fa lu doy doy waar waaye nag la ko yóbbu mu nekk roi des arènes nag moo di kaw ba nga xam ne seqoon na ko ak Eumeu Sène bés ba nga xam ne ca la ñu bëree mu mel ni kera nag ba mu ko kawatee daal loola moo ko def roi keneen koo xam ne nii moom itam dégg na roi ñaari yoon daan na Modou Lo moomu muy bombat ji yëg li kaam ne na daal soo bëggee dégg dëgg moom les arènes nee na boo xoolee moom mooy seul mbër mi nga xam ne ni daal ci jamonoy 1995 ba tey moom moo di rescapé ba maanaam moo ci rëcc ba tey di ngemb wax boo xoolee ñoom Yékini ñoom ña nga xam ne ñoom ñoo dee Tyson ba ci Tapha Gueye ak ñoom baaboy ku ci nekk daal bàyyi nga làmb waaye moom mii daal di Bombardier ba tey moo fi nekk di ko ñàkkante yëglikaay bi nga xam ne nii moo di les arènes moo nu xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey loo xam ne les arènes ñëw na wax nu ko mu mel ni ki daal tey moom ci mardi ji CNC daal dana daje ak promoteur yëglikaay bi bu tuddee ko nag rentrée des classes pour le CNC yëglikaay baa xëy tey wax nu lu mel ne ki noonu jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi tey li ñu xëy andil muy sunu làmb muy les arènes ah yëglikaay yi tey loolu lañ ñu indil bu nu ko jëkkee nag ci xët wu njëkku yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb daf ñoo dikkal ci ñaar ñoo xam ne daal ay frère ennemi la leen yëglikaay bi tudde tey maanaam muy ñaar ñoo xam ne rivalité maanaam wàllum kujje dox na seen diggante muy Modou Lo le roi des arènes bala Gaye 2 ancien roi des arènes muy ñaar ñoo xam ne seenub jaar-jaar metti na trop trop trop trop ci làmb loolu lañu sunu làmb tey dikk dina ko wax mel ni ki nag rivalité boobu ci sport lañ ko fekk dama naan du rivalité wu bañante ci xool mais rivalité wu lan la sport la te defe naa itam boo xoolee ci atum 2011 comme yëglikaay bi ni ñu ko waxee kii di président Wade dalaloon na leen ca palais ba fekk ñu bëre ba pare yaakaar naa ne mu réconcilier leen jubaleen xamal leen sport kat nekkul bañante te defe naa ba mu leen daleel tamit kenn ci ñoom ñaar rëccu woon ko waaye loolu du tax rivalité bi jeex parce que li tax mooy ku na foo dëkk di ko défendre muy sa gox Modou di défendre Parcelles Balla di défendre Guédiawaye ak ay supporteram ku nekk di dund noonu ça veut dire que loolu mooy dundalu sport moo koy neexal parce que rivalité boobu dafa neex tey combat Modou Lo Balla Gaye bu taxawee ñépp yëg ne làmb am na même boo tëggaatoon donte Balla daan na ko deux fois tey tey boo ko tëggaatoon ñépp a yëg ne làmb am na parce que ñaari mbër yee toll noonu ci seen dayo donte yàgguñu ci làmb parce que kii 2005 la ñëw muy Balla moo du ñëw 2006 est-ce yaa ngi dégg mais terewul am na tey fu ñu toll ci làmb am na liggéey ba nekk tey ay royuwaay si làmb macha allah muy ñoo xam ne daal ah maanaam loolu mooy làmb te defe naa ne rivalité bi yépp lenn la bëgg ndam la bëgg a bëggal sa waa gox la bëgg dundal sport la te rivalité boobu defe naa ne dafa demoon ba benn moment sax ndax ku ne yaa ngi fàttaliku diggante Sa Thiès ak Zarko combat boobu gis nga kere la am ci coow la fa am ci waxante dox ci ñoom ñaar kera balla indi Sa Thiès Modou indi Zarko ndax diggante jamono jooju Zarko mu ngi écrit Rock Énergie di ànd ak Modou ñaa ngi dégg ñoom ñaar ñu mel ni guddi ak bëccëg mel ni seex kee topp ci Balla muy Sa Thiès kera defe naa ne Demba Diop yëngu woon na trop balaa ñoo bari ñoom ñaar ca géew ba ku ne gis na bañ fa dajee na mu deme woon loolu nag moo lay won ne loolu mooy sport loolu mooy làmb moo tax nga Gadiaga daa mel ni comparaison boobu la am moo tax mu ne ñoom ñaar seen rivalité donte métti na mais luy dundal làmb la effectivement rivalité wu Modou ak Balla gay day dundal làmb rivalité ci làmb dafa baax ndax defe naa ne Pikine ak Fass amoon na benn moment boo xam ne seen rivalité yeggoon na ci niveau boo xam ne nii niveau bu doyoon waar la mais nekkoon na lu nga xam ne lu daan dundal làmb la mais ñoom ñaar yaakaar ne du ñu parce que li tax ma ne bañante wuñu mooy ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla yàlla dogal na ku ci jël naa la ci wàllum liggéey bi may def maanaam interview wala dalal la waxtaan ak yow wala nga dalal ma ma waxtaan ak yow ci làmb te boo toogee ak ñoom wala nga waxtaan ak ñoom da ngay xam ne ñii ay yu baax lañu ay borom xol yu nice lañu waaye nag bu seen liggéey jotee dañ koy def défendre seen goxit bu jotee dañ koy def muy ñaari ñaari mbër yoo xam ne daal rivalité ba noonu la ko yëglikaay bi ñëwee tey wax nu ko leneen loo xam ne yëglikaay bi indil nañu ko mu yëgri tay si bi nga xam ne moom la ëmma seen nekk tête de file ba mu ngi xam ne daal écrit ba ah bu bëggee dégg dëgg daal ténoré seen mbir doxatul ndax ëmma Lac de Guiers na ko kii nga xam ne nii moom moo di Tyson 2 franc gagné ko ngeer itam yëglikaay ba boole na ko ci waaw moom sunu làmba ëmma seen nag ñàkk na ko ma mag Lac de ci lu nga xam ne ay avertissement la ren loolu ñëpp gis nañ ko te defe naa avant lool dafa ñàkkoon ko moom ak Modou Lo kon moom mën nañ wax dëgg yàlla ah ba mu jógee si Bombardier nekk roi des arènes ñaari combat yi mu fi jot a jongantewaat yëpp da ñàkk kon loolu defe naa ne du neex ci mbër bu nga xam ne VIP nga di mbër bu mag mais nag sport moo tëdde noonu kii di Tyson 2 tamit gis nañ ne li ko dal bër dem ci digganteem ak Franc donte combat bi mu mujjee jóge da caa am ndam par recours diggante ma góor a soog mais bi mu dell see diggante ak franc kere gis nañ na mu ñàkkee combat ba loolu nag li ko waral mooy lamba yi tëdd noonu boo xoolee euh, tamit des fois parce que boo xoolee ki nga xam ne nii moom moo di ëmma euh, nga xool Tyson 2 da ngay xam ne bi ñu ñëw ci bés bi dangay xam ne ñi dikk nañ pour ut si ndam mais est-ce que adversaire yi ñu yi ñu fa fekk pare wuñu ñoom tamit pour ndam axakay ah loolu mooy waral nag te faw ndam dugg ñaari ndam ay dugg comme ne ko nag su waxee ay génn nag ñu yóbbu ko liggéey nag la laajaat pour ñu gën a progresser parce que taay si nga nekk nekk yi boo xam ne tey a teesu parce que li tax mooy foo ama seen ne Tyson ne fa ak yeneen i mbër écrit des arènes ndax ama seen bi muy nekk roi des arènes nga taay si nga loolu nekk nekk boo xam ne exemple la tey donte yàgguñu kaa sanc ngeer nag moom itam ku ne xam na ne Euh, ci écrit boobu la bokk yaa ngi dégg ngeer bu sab ngeer itam amoon na ay difficulté teglante woon ay défaite yu bëri waaye ren dama naan xam naa yëglikaay bi xëy na fa fàtte combat bi mu bëree ak ki nga xam ne nii moom moo di libidoor bu ngunjaan ku ne gis ren ci combat prince yi kere dafa daan libidoor bu ngunjaan moom ngeer bu sab bii kon yaakaar naa moom itam donte ëmma ak Tyson 2 dañoo ñàkk waaye ngeer moom combaam da koo gañe waaw loolu moom loo am ren loolu la def waaw keneen koo xam ne nii tamit yëglikaay bi dikkaat na ci moom fan yëpp ñu ngi koy wane ci presse bi ci côté bu nekk muy Siteu euh, bu jaam a gën ci combat bi nga xam ne moom lay mën actuellement muy mbënn mi nga xam ne mu ngi xeex ak moom ak semence bi nga xam ne mu ngi koy jéem a xeex di jàppale seen yi muy lu am am solo yëglikaay bi dikkaat na ci loolu mel ni moom Siteu moomu nag ah, bon loolu muy def defe naa ne lu baax la comme ni ma ko doon waxee rek te ku gis na neneen a ngi vraiment mbaax mbaax rek lañ ko mën a tudde mu ne su koo tudde neneen nu dul mbaax la ca des tamit ne na mu tudd rek lañ ko mën a tudde waaw waaye yàlla bu ci yàlla xiir kenn waaye c'est daal li muy def moom yàlla na ci yàlla xiir képp kuy doomu aadama parce que nag dimbali sa moromum doomu aadama ciy jafe loolu defe naa ne yàlla daf ñu ko sant en tant que ay jaamam te defe naa sett ci loolu lay taxaw guddi ak bëccëg depuis mbënn mi commencé ba tey ah mu ngi jël ay machine ay moto pompe di ko jox nit ñu manque ndox mi di leen dimbali yeneen ak yeneen ku ne seetaan na way juróom bu jigéen témoignage bi mu defal doomam ci Equivox TV muy témoignage bu ne boo xam ne yaakaar naa ne ku nekk war na si jàngate man Babacar da am na lu ma si jànge yàlla mi ñu tim xam na ko kon doom ju ne war na fonk ay way juram waaw ndax nag ndayam ja nga xam ne nii moom moo ko moom mooy way juram bu jigéen moom moo wax te la mu wax defe naa ku ko seetaan sa rongoñ dana xaw a tuuru parce que àddina li olof naan ndar xëyul sotti waaye li koy waral mooy nit ki boo xamee fi nga bowoo rek ñu yar la ci yoon yar la ci njub ci noonu ngay mën a mel boo màggee tamit doo mën a def lu dul yore xolu yërmande parce que da ngay xam ne yow li jaaroon nga ci ndax la yaayam nettali ku ci jaar tey bu la yàlla dimbale ba nga am noom nu sa àddina doxe dimbalee kese nga war a def tey itam loolu moom ci la seetane muy lu am am solo noonu fonkat way jur yi ñun ñëpp nag muy way jur bu góor di bu jigéen ndax ndax baay bi la tànnal yaay ju baax ko kenn mënu koo fay te sama yaay baax na foo ko dégg neel sa baay jërëjëf ndax moom moo tànn sa yaay moo tànn way jur bu jigéen ba tey olof ne na liggéey ndey la waaye barke baay la kon yaay booy mooy liggéey signature ba ko ko yor mooy bàyyi moom la ñuy indi dossier mooy signé yaa ngi dégg kon yàlla nañu yàlla defal daal ñu am ngërëmal way jur dafa am solo lool lool lool lool ah macha allah lu am solo la leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci xëtam mu njëkk muy tey dem réew démb ñoo bi seen see amaloon tey nag mu mel ni tey lay dalal promoteurs yi ñu wan ñu Pape Abdou Fall mi nga xam ne am na kuréel bu mu jiite ci promoteurs yi mu mel ni tey la leen euh, tey la leen CNG di dal xam naa nag bu leen dalalee dinañ wax ci saison bi naka lay demee waaye li li li am solo rek dama naan la fay tukkee bu fekkente ne dañ naan saison bi ubbi nañ ko pour man du nekk xibaar boo xam ne bu nganda nganda lay doon parce que li tax mooy saison wu lamb ñun liñ ci xamoon depuis ñu commencé saison lamb ba tey le 31 juillet la saison bi daan teg ñu noppalu août septembre octobre saison bi ubbiwaat kon defe naa buñ ko ubbee octobre mooy li daan am rek a am yaa ngi dégg kon defe naa foofu itam ah du doon lu kii parce que saison bi euh, nañu xam ne mois de bi nga xam ne moom la ñu waroon a bëree te lamb ji te te combat mujj ci am mois de boobu sax daawuñu ko bëree dañ ci daan faral di tëj saison bi mais ren xëy na corona ba taxoon ñu maye woon ko waaw waaye daal buñ fi ubbee lamb ji pour mois d' octobre tamit nekkul xibaar boo xam ne bu bees la waaw parce que loolu moom mas di am feneen foo xam ne dañ fay dem muy les arènes mu dikkal ñu ci Modou Lo tey parcours d'un combattant boo xam ne nii moo ko yóbbu mu nekk roi des arènes waaw loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey wan wan ñu moodu ci xët fu ci photo bu yaanja yaanja yaaj mu ngi noonu dal di euh, teg ay euh, waaw daal daal di daal xaw a yooyu wala xaw a coop yooyu mel noonu waaw par parcours bi nag am na solo parce que Modou Lo ci làmb vraiment jaar-jaaram yombul parce que nag wax naa leen ne léegi 2006 la ñëw ci làmb te tey nekk na roi des arènes te parcours bi ku ne xam na ne du lu yomb ay combat yu méttee méttee métti la Modou Lo bëri parce que ñun topp nañ ko bi muy bëree ba ni mu nekk roi des arènes ci petit combat ba grand combat yaakaar naa ku ne yaa ngi fàttaliku diggante ma Xaadim Jàllo pulaagu ca stade Assane Diouf ñi ko seetaan xam nañ bu baax li may wax kera ñu bëri joxoon ñu joxuñu woon Modou favori te ku ne gis na kera nam daane kii moo tax kera bi kii caar eh, yarax toogee fii naan Bécaye wax kii arrêtera Modou ma ne ko il fallait mu wax ko parce que daa gis lu ko jaaxal te ku gis ne ne ne na ngi parce que le Modou wane ci jamono jooju ak ni mu toll woon ak Xaadim Jàllo boobu ni mu mel ñoo déet na waaye mu ñëwaat stade Assane Diouf stade Iba Mar bëre ba mu fa bëreeg Serigne Diouf jël bu rëy ba mu ko daan ah di nga wax ku ne fàttaliku nga mbapat ya mu bëree mook Omar Fall muuma ca way ah muy koo xam ne kon dafa tarbiyu ba tey mu nekk roi des arènes macha allah muy parcours boo xam ne yëglikaay bi topp nañu ko mbay digganteem ak Papa Sow ki mënatu koo fat fatte fàtte déedéet yëglikaay bi na loolu nag lu derby parcelle la woon kenn mënatu koo fàttali waaye tey gis nga tey yàlla dogal na ñun ñu bokkaat parcelle xam ne ñoo bokk nday bokk bàyyi waaye bañ ca toll war koo def defante nañ ba mu saf sàpp mook booy kayre kera ba mu koy dóor di xeex ak moom ah muy di kaw di am kera defe naa ne itam macha allah bés boobu deetee su ko fàtte kaw bi mu def di diggante ak Eumeu Sène loolu yëglikaay bi moo xëy tey dikkal ñu ci ah jaar-jaaram diggante ak ki nga xam ne nii moom moo di waaw bàyyi ma njoon combat yu bëri yoo xam ne moo du ñàkkante na ko ba génn ci Taïba nekk roi des arènes fan kay jeexale mooy Bombardier mi nga xam ne nag yëglikaay bii di lee di les arènes moo ñu ko wan ci xëtam mu njëkk mu mel ni moom mooy rescapé mooy rescapé wu 1995 bi ci génération boobu génération ñoom Tyson Yékini ay Baboy ba laal Tapha Guèye moom tey moo ci des di ngemb di bëre ba tey loolu nag li ko waral dama naan hygiène de vie bokk na ci ndax am na ñoo xam ne Bombardier moo leen mag te bàyyi nañu làmb parce que sport boo ko bëggee def surtout de au niveau rawatina sport individuel il fallait que hygiène lal ko bu loolu amul pour nga yegg si fii Bombardier yegg dina jafe te Bombardier ku ko xam-xam ne c'est un sportif de haut niveau loolu moom la yàlla dogal ndax yàgg nañ ko gis muy jongante ji à l'étranger ci yeneen sport yu bokkul sax suñu làmb ji kon tey bu yegg see fii nekk rescapé bi loolu defe lu xale yi war a roy la war ci bàyyi xel loolu moo fi dikkoon tey ci yëglekaay yi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di balu ñëpp àq di nuyu suñu yi ah, aw euh, dégga man sax suñu supporters yi suñu téléspectateurs yi laa bëgg a wax ak suñu soppe yépp mais di jaal tamit ku nga xam ne dafa foog bokk ci sama ci fans club bu Babacar muy grand lay gorom bi nga xam ne daf ko may ñaareel fële ca na Baye dafa génn àddina maa ngi koy ñaanal maa koy jaale gorom boobu grand la yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana di ko jaal sa ay njaboot sa famille say soxna rawatina sa ñaareel boobu nga xam ne nee nga kooku moo la ko mayoon te defe naa ne nag olof ne na ku la yóbbu màkka bañu la ku la doom bañu la waaye ku la may jabar tamit bañu la kon yàlla na def jàmm tàppe xol yi comme ni ko maam da doon waxe ñu yeneen te jàmm Sénégal jëm kanam Habib di leen jox di daje suba tey nag Habib moo ne woon ci caméra bi waaw moom na xam naa ne miinu ma ko waaye ku yaru la may niru waaw te teb yar daa am solo ndax Youssou Ndour noon na yaru du la wàññi dara waaw waaw yaru na kon yaru yàlla nañ ko yàlla defal moo ëpp solo lépp nag ab yar ak i teggin sëñ di Maxtaar Mbàkke noonu na ku amul ab yar doo yore dara ku amul i teggin doo teggi dara kon yàlla nañ yàlla defal ab yar ak i teggin waaye may ñu ñu nangoo dégg ndigal te di ko jëfe loolu moo am solo Habib kontaan naa ci yow yaakaar naa Passy la dëkk su ma jumul muy nuyu waa Passy yëpp axlu làmb ndax mbokk yi xam ngeen ni ci biir émission boobu si ngeen di amee ay rubrique yu am am solo